pour man day joxe ay gage mhm. même moom tam ñemeetul moom wax na tey sax moom it mais wóoluwuñ ko waaw xam moom tam ci la nu tuddati rëbb <laughs> wolof nag <laughs> Amadou Ba kenn du xamul lu nekk ci boppam bi waaw c'est ça il s'est avancé waaw Ba la gën a ragal ci Sonko ak Diomaye Amadou Ba neexut a ñeme soo ko na leen ba dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la léegi Amadou Ba mooy hmm? moo yee de waa ji fi muy dugg amu ko de lu mu moom nag ba comme kii li ñu il <laughs> la fa ne ma maam maam bet bi waaw dëgg la dëgg la de donc Macky bëggul bàyyi benn poche Amadou Sonko jéem na ko sax rey waaye mënalu ko dara de waaw kay jéem ne moo tax mu ñëw mhm. dégg nga benn côté waaw léegi benn côté consolider mhm. li nga xam ne nii moom la seqoon ak gars yi nii mhm. ci présidentiel la waaw pour man loolu la quoi léegi en ayant dans le viseur que mën nañu ñaan en deux mhm. bu nga écarté tam loolu parce que Mansour Faye loolu lay pare kay Mansour Faye ah. bi Macky bàyyi troisième mandat waaw dafa dafa xam naa wax ko <laughs> sa mission n'est pas terminée waaw absolument absolument ah lu ku ne xam ne loolu la Macky Sall bëgg xam nga benn Euh, postulant que euh, on devrait normalement différer la présidentielle mhm. pour permettre à la fois à ah, Macky Karim Wade de mhm. participer léegi man trio boobu waaw moom la ñooñu ñëwaat 2029 man pour man schéma boobu la ñu nekk ah nee naa leen kay schéma boobu ko mën a Son Sonko kay mi ngi balisé 2029 waay waay Amadou mhm. bon xam nga fa lañ koy jaar tam lu tax moo ragal parce que pour man Amadou tam loolu bon sens la Amadou bu ñu ko mënoon jàpp nii. Mhm. Macky moo koy jëkk a créer. Mhm. parce que ku nekk xam nga ne Macky mosu ko bëgg. Mhm. boo amoon pexe ci moom. créer na ko problème bu yàgg. mais xam nga état dafa yaatu. ni Macky def ba créer Karim. am na yoo mu nga Ba xaw ma ci affaire débat bi dafa génnaat ne. Amadou Ba. yor na dossier Amadou Ba sur les quatre vingt quatorze milliards Amadou Ba ngi ci biir ak. mag chiffre ñu maquillé nee na dossier yaa ngi sama loxo te dinaa ko publier waxati na ko de. waaw léegi xamoon ay waxu. am na épée de Damoclès ci kaw Amadou Ba de. léegi xam nga waxu premier ministre dafa la xam nga. waaw waaw responsable la waxee. waaw même bu dee ci enceinte politique. premier mm-hmm, ministre la. Mm-hmm. léegi te ñun dañu dugg ci liggéey yoon. waaw nañu xaar. ñu xaarati dañ ko respecté foofu comme c'est le premier ministre waaw ñu xaar ba kañ ñu ngi xaar de xaar xam naa ma xam naa ne ah. yooyu yow tamit formalité ah, ah. rek la mm. xam nga premier ministre la mm-hmm. de toute façon hum, hum, non hum. les ambassadeurs accrédités à Dakar ils prennent note. dinañ note de. le nouveau premier ministre. Euh, qui fait figure apparemment de chef d' parce que bon, ne gouverner. ah moi gouverner kay. dégg les les carrières son prédécesseur waaw. ambassadeur il est trempé dans le dossier des 94 milliards. voilà et des chiffres maquillés de l'économie voilà d'origine léegi leur gouvernement. suñu respectif. Ah. vont saisir le secteur privé. Ah. les investisseurs vont fuir. ni créer emploi dinañ daw. très nañu daw ndax fisc bi. ku ñëw ñu jox la fisc bu impôt bu dul jeex. bu jëlee ah. euh, euh, gouvernement bi dañoo euh, dañoo yóbbu alal bi yëpp dara desu fi. dañoo maquiller chiffres yi gis nga les conséquences après. yooyu yëpp. gouvernance de la note du Sénégal léegi bu continuer te amuñu preuve fii loo fi wax rek ambassadeurs yi fi nekk. Mhm. Ah, ñu ngi ñu ngi rendre compte seen i dëkk. Mhm. ñooy di wax seen investisseur mhm. ah Sénégal de du leen jënd jaan ci pax. daf leen dànk. foofu wóoratul léegi. doy na waar de parce que amul bonne gouvernance parce que li autorité di wax ak réalité bi bokkul. entreprise yaa ngi tëj.

ñun suñu économie bi daal normal na ba pare. ba dem yaraax. waaw xam nga Sénégalais noonu ngay waxee ñoom misaal. waaw ñu comprendre yenn co outils concepts yi. la élaboré. waaw mën naa leen boo tey yaraax seen benn camion yi sax. bëreetul embouteillage yaraax bi ñu daan mel. camion yi doon jaay jën yi. waaw kay di yóbbu les marchandises. léegi la yaraax yaraax xoolal ah, kay am na liggéey léegi doon def une léegi duñ def cinq minutes sax ci yoon bi. plus d' embouteillage. oui plus d' loolu sax benn kii la benn signe la. da yaraax. Hmm? na ay fu ñu jëm muy retoram yaraax euh, bi la noonu yóbbu réew Euh, kii moom talul dara lu Facebook ak defante. waaw ay Facebook. ay Facebook ay autorité ak xaste ak menacé. nee na Barthélémy Dias mu béyoon na xam ne dootul campagne. vraiment na def nak ah, waaye li neex na di doole moom neex na de. déedéet amul doole. ah kay doole état la ñu yor nag. doole peuple moo ko yor. Ah, ku doon mën ko yor sax. ah déedéet ñoom xamuñu loolu de. la ànd ak. Ah, ah. la voix du peuple. il faut être très attention. est-ce que xam nañ non le pouvoir rend fou le pouvoir rend absolument fou le actuellement. <laughs> rend fou celui qui veut bien perdre. Ah. voilà donc xam nga ñoom. Hmm. yaa ko politique. donc nous avons xam un yi ñoom fi mu ne nii ñoo defaree ñëpp dañu leen tàppe. dëgg la waaw parce que ñoom li ñu jël mooy. ku wax nit ku baax ku wax nga toog saaga ko. waaw parce que loolu opposant ñaaw. opposant loolu boo ko defee ñëpp mu dañu noppi. waaw opposant waaw opposant mhm. waaw kay. parce ma dem répété ko. Mhm. Macky Sall travers ak taaru ko rattrapé c'est ce qui a fait Sonko. waaw kay. moo tax man sama c'est ça. président de la République. waaw très parce que wax jëpp bindal nañ ko neexal rek. Mhm. lii lépp jomaay moo ko. ah jomaay da bu yeewu xamee appliqué ko rek. Mhm. ñun ñu am jàmm. j'espère bien. waaw j'espère que yeewu na. xamee appliqué ko rek. te déglu na lay si ñu. voilà jomaay ki ah. sant Ndiaye ak Diop ak Sall ak ñëpp. yow yaa ko jaboote. mais waxam bi wax dafa dafa dafa dafa dafa di boom au cœur si yenn ah, sénégalais ah, parce que ñepp ko ci la commencé mais ah nous mais bu ba ah. ah peut-être la fédération de mom du président patriote tout le Sénégal et des Sénégalais lolu lolu lañ doon xaar ci mom légui doxal ñu gis voilà li la philosophie du sursaut <laughs> dëgg la xam nga Abdou Diouf bi mu ñëwee pouvoir rek. Mhm. moom dèjà amul base socialiste yi. waaw donc lu mu mën. Mhm. jàppal li ma lay wax nii. il faut mhm. prendre note li ma wax pour ëllëg. Diomaye peut être un bis. mais est-ce que face à mais moom lay nuroo sax. waaw c'est-à-dire que légitimité boobu ñu koy xaj ci ci ci parti bi ñii di ko. waaw waaw Diomaye mën na ñëw yaatal après langam. waaw est-ce que nekkul di ah, waaw. boo xoolee le Gresen ancêtre GER groupe de réflexion sociale si. CRESEM mhm. ay mais ancien nous contrôle Senghor ñoo ci nekk. waaw mais ak du soo patriotique. waaw képp ku bëgg Sénégal ka ñu and ligue mhm. les Ebda Ilman Kan. Mhm. ñoom ñu fekk ci ko. waaw ba jër Thiam. waaw mais Doudou Sine. le le moo doon demoon na ba kooku idéologue parti socialiste. waaw léegi euh, Doudou Sine. il faisait partie des plus irréductibles adversaires de Senghor. xam nga demoon na bëgg.

pour dalal askan wi donc na a dit. ci réewam jël son destin en main mu jël ko voilà mu jël ko amé bu di koy parce que tay kenn waru fi critiquer kenn voilà président deug la moom mo moi, fi lu fi am rek jamaay la neex ah ah juridiquement mo am instrument ah moy suñu papa moy suñu yaay ñun bi koy te li Abbas Fall wax li ko ciy ñaan bu faire pour ko faire passer par perte et profit. Ah, quel que soit heure bi war nañ ko entendre sax. parce que réew responsabilité la. ñu ngi jàpp bëgg a sànni ko ci kaso bi. jël Abass Fall bàyyi ko muy sillonner le Sénégal. bien sûr nee na li mu waxoon baalu na àq jeex pour koo xamante il a appelé au meurtre. bien sûr ci ngoon sa ñu taal. un incendie criminel. criminel nga ne. kooku kenn du ko kenn du ko woo on va ouvrir une enquête. Oui. bien sûr bien sûr. Sénégal non non non aux dernières nouvelles. gis naa ah. waaye yow la meilleure la meilleure façon d'enterrer une affaire mooy lan. mooy mooy ay enquête di la woo kaay wuyu. nga foofu